waaw ñu sant yàlla ginnaaw moom mi nga xam ne comme que suñu borom moo ñu jox Serigne Touba mi sanc dëkk bi di wax ne vraiment li tax mu sanc ko ñu ngi koy gis ci bët te mooy luy jëmale doomu adama kanam te xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy doxal àdduna bokk na ci te li nga xam ne lii moo ñu fi dajale tey moom mooy euh, formation te formation dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ne dafay doxal àdduna vraiment di wax ne euh, li ñu fi dajale moom mooy euh, gën a yokk formation ñi nga xam ne ñi dañuy former xale yi maanaam euh, former des formateurs ñi nga xam ne ñi dañuy yor ay xale di leen jàngal carrelage ak xale yoo nga xam ne yi peut-être ñoom tamit euh, dañu ñëw dugg ci formation yi pour ñu former leen loolu daal moom moo ñu fi indi pour euh, gën a yokk xerañte suñu éléments yi nga xam ne ñoom ñooy def carrelage waa tey boo xoolee yegg nañ si juróom-benn fukki nit ak juróom-benn su ma jumul loolu lañ ma jox ci liste si présence yi. bon 68 juróom-benn fukki nit ak juróom-ñett teew nañ fi ci formation bi. te defe naa ne ñoom ñëpp bi ñu leen dégloo aussi tamit laaj nañ leen ndax liñ leen jàngal dégg ngeen ko ndax dina leen jariñ te euh, seen réponse mooy waaw seen réponse mooy waaw. bon ñun suñu jafe-jafe moom mooy euh, accéder ci ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo yor. Euh, artisanat maanaam suñu ministre actuellement defe naa ne war nañu ko rencontrer te pour ñu rencontrer que defe naa ne dañuy demander audience directement ci li nga xam ne lii moom mooy questionnaire bi ngeen ñuy jox nii di wax ne monsieur le ministre de l'artisanat euh, commandant du tourisme et de l'artisanat ñu ngi lay demander audience di wax ne aussi tamit euh, képp ko nga xam ne kii tamit euh, président chambre de métiers nga bu nekk ci biir Sénégal ci département yi nekk ci Sénégal yëpp ak région yëpp defe naa ne dinañ soxla seen ndimbal parce que lu mel nii boo koy taxawal ci dëkk boo fa fekkee sa kilifa muy président chambre de métier bi defe naa ne daf la war a jàppale de amal nañ ko Diourbel barke démb te amaloon nañ ko aussi tamit Dakar ñaar yoo nga xam ne tamit formation yu mel nii la woon bon bi euh, suñu première sortie nag dafa nekk région de Diourbel ñu ne duñu ñëw Touba jéggi Diourbel nañu boole waa Diourbel ak waa Bambey ñu def benn formation bu ñu fa jogee ñëw Touba defal leen formation bon liggéey tu moom mooy liggéey te defe naa ne am na lu nga xam ne lii dafay Euh, doon lu bees toujours ci métier yi comme euh, métier yi ngeen yor tamit am na toujours lu bees lu nga xam ne lii day juddu loolu moom euh, day doon ay difficulté bu fekkente ne jànguñ ko pour mën koo defee ni mu waree parce que toujours dafay am ay matières yoo xam ne yu bees la ñuy doon ay équipements yoo nga xam ne yu bees la ñuy doon ak ay produits comment dirais ay carrelage yoo xam ne yu bees la ñuy doon te boo xoolee li gën a nekk difficulté moom mooy peut-être. Euh, accéder ci yooyu nga xam ne yi moom moo ñu yombalal ñuy mën a effectuer suñu métier ak euh, du mën a def euh, comment dirais-je carrelage yu nga xam ne yi peut-être clients yi ñuy dénk dinañ am contentement bi nga xam ne bi moom la ñuy xaar ci ñun. loolu moom dama ciy tontu déedéet parce que du benn regroupement bu ma mës a nañ ne ah, yëkkati nañ liggéey jox la ko. peut-être des fois on dit que ne da ngeen jaarul ci yoon wi wala da ngeen utul këyit yi ngeen war am waaye je dis que ne concurrence bu fekkee dafa am. nga jël nit ki kat nga ne kat euh, comme ni ma xeese nii ci biir nit ñi nga ne ku xees du bokk bu boobaa defe naa ne euh, génn nga ma déjà bu ñu nee supposons société bu amul euh, fonds société bu amul comment dirais-je garantie duñ la jox liggéey defe naa ne génn nga ñu bëri ci loolu nga xam ne lii moom nga war a joxe kon bokk damay wax ne état bi moom gisaguñu daal seen njariñ ci euh, comment dire gisaguñu seen njariñ si suñu métier. nañ regroupement bu nga xam ne bi mu ngi existé déjà Touba parce que am na cellule bu nekk Touba bu nga xam ne bi am na bureau Xaadim saw moo ko jiite ñoom Antou Dieng ñu ngi si ñoom Baye Sall ñoom euh, Moussa Ka ñoo ñëpp képp ko nga xam ne kii bëgg nga def formation donte ne sax jeexal nañu euh, région def nañ Touba ba pare ëllëg mën nañ nekk ñu dinañ ñëw Taïf bu ñu ñëw Taïf ñooñu tamit mën nañ ñëw Taïf yeggali def seen formation bu fekkente ne tamit loolu mënul nekk ku ci am capacité tamit jógee Touba ñëw dakaar si yiñ fay amal nga ñëw assister ko aussi parce que am na yoo nga xam ne yi ci industrie yi nga xam ne ñoom la ñu comment dirais-je partenariat foofu lañ koy defee. képp ko nga xam ne kii tamit euh, bëgg nga tamit mën nga déplacé wu bu ñu demee parce que bu ñu jógee tey si région de Diourbel euh, waa Kaffrine ñu ngi ñuy xaar waa Kaolack ñu ngi xaar waa Ndar ñu ngi ñuy xaar kon boog defe naa képp xam ne bëgg nga def formation yi nga xam ne yi moom la ñuy def boo woowee ñi nga xam ne ñi ñoo nekk euh, comme dirais-je euh, responsable yi comme secrétaire général Ousmane Sow son adjoint Ousmane Coulibaly wala Ndoye mi nga xam ne mi moo yor trésorerie bi dinañ la wax ban yoon ngay jaar pour ñëw def formation bi